يكفيه لقياه السماوات العلا وبقدرة الرحم الرب الجليل تشرفا يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد صلى الله عليه وسلم لن يخسف رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي mbokki julli ñi seetaan ci سنو seenu tene TV Thiénaba TV ak ci تي في tey ñu ngi nii ci dëkk bi ñuy wax Canaba Kajoor di dëkk maam Ahmadou Ndack Seck bëgg a waxtaane nag ci tomb boo xam ni bu am am solo la waaye bala ñu leen dëgmal tomb bi ñu bëgg a waxtaane tey dañ leen di fàttali rek ñu ngi ci ren mooy 44e édition bu gàmmu Canaba Kajoor di tombeek samedi 19 février 2022 tomb bi ñu bëgg a waxtaane tey nag ñu koy tuddee al qiyaada al rachida fil kitaab al quraan loolu nag bu ñu ko waxee mooy taxawaay boo xamee ne si nii bu am solo la ci discours yi nga xamee ne si nii mooy discours alquranul karim ñu bëgg cee jël jël benn exemplaire muy suñu sëriñ Cheikh Madike Seck radiallahu taala anhu ñu ci ànd ak suñuy ñaari oustaz ki ci jiitu muy oustaz euh, Thierno oustaz euh, euh, Ibrahim Diop wala Alpha Mamadou Diop moo nekk ci sama ndijoor moom dinañu ñëwal ci wàll bu njëkk gi ki nekk ci sama càmmoñ muy Oustaz Cheikh Kayre moom it dina ñëw ci geneen wàll bi incha allah bu ko defee tey jotaay bi noonu lañ ko bëgg a dëgtalee mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan di Shamsu TV xam naa ci noonu rek buñ guddal kàddu gi ci lañuy ñuy jëlee kàddu gi jox ko Oustaz Alpha Mahmoud Diop mu duggal ñu ci li nga xam ne si mooy tomb bu njëkk bi muy al qiyaada al rachida fi xitaab al quraani أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جريجف أستاذ جاسي من لي نيو دي لزيار بباخ باخ دي نيو أستاذ شيخ من بوك الجتاي بي دي نيو أغال ما شمس تي في أب نيليني توب في تي كاجور تي سنغال واي تي أدنسيب di jitu lolou ñuy xalifa général Baye Alxasan Seck nuyoo di ko ñaanal yàlla mu dëgëral ko di nuyu mbokki kajoor yépp di leen ziar di leen balu di leen baal di ñaan yàlla may ñu ñuy yàgga teewe bis yu mel nii di ko fàttaliku di ci jariñu di jariñante Oustaz Niasse pour ñëw ci laaj bi nga wax al qiyaada ar rachida fi al xitaab al quraan bu ñuy xool titre bi dañ ko actualiser ndax buñ xoolee jamono ji surtout suñu réew mi jongante yi lu jëm ci wàllu politique maanaam metti na njiit yi ku nekk mu ngi wootewu daan mbir mi foofu la te ñun canaba comme dëkku diine la canaba diine moo tax ñu sos ko lu ñuy dugal ci diine la ñuy basé wu ci la ñuy commencé te mënuñu dem leneen bàyyi diine ginnaaw léegi nag njiit buñ koy wax alquran yàlla bàyyiwul ci téere bi dara ndax ma na fil kitaabi min shay léegi nag ñu dem nafaraat téere boobu mooy alquran nga xamante ni mooy constitution musulman yépp ñu xool nan la gisee njiit ak njiit nan la war a mel ci biir alquran waaye ci dundug yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñuy wax titre bi wala temu tey bi dafa am solo ndax ñépp xam nañ ni aw nit fu nekk di dund mënuñu ñàkk ku leen jiite yàlla waxuma la nit ñi waaye njanaaw yeeg rabu àll yi sax dañuy am ku leen jiite yarkat yi dinañ ko xam ci yamb dinañ am ku leen jiite ba ci gett gi sax day am buru gett yooyu yépp nag yàlla genn góor nee na ma loolu day wane ni yàlla kenn la te ñaari njiit mënul am foo dem dina am ku fay jiite kooku wahdaniyatullahi mooy tajalli fi saa'iri maxluqaatihi waaye njiit buñ koy xool ci lislaam dafa am ay critères yuñ ciy xool dafa am ay jikko ndax buñ demee ci alquran dafa am baat bu ñëw ci suratul kahfi mooy ar-rushd mooy njut baat boobu dañ ko sopp lool ci képp ku bëgg a jiite mu am ko motax suratu kafi baat bi ñew na fa ñetti yoon ba ba xalé ya di dem ci xunti wa dal ni rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada peut-être nit ñi duñ ci baye xel lu waye bo gessu waté ci biir dem ci xissatu musa sayyidna musa ak Xuda li jaraloon yonent yàlla Moussa mu dogu pour dox ay junni junni at ngir sàkku xam-xam boo xamante ni dafa ànd ak njub mooy ar ndax ba gisee ko hal attabi'uka ala rushdan muy wane ni segam ab yonent mooy dogu fa yéene dox junni at ngir am xam-xam boo xamante ni njub moo ci nekk kon baat boobu war na tax ñu ñëpp ñu taxawaat jàngat ko bu baax ba ci diine sallallahu alayhi wa sallam ba mu fi jógee ñeenti xalifaam yi ko wuuti ñëpp dafa am luñ leen di woowee mooy alxulafaau arrachidoon ñu jël baatu rushd mooy njub googu daat koy askanale ñooñu nga xamante ni ñoo wuutu woon rasulullahi sallallahu alayhi wa waaye xilaafa wala présidence wala njiit ak fu mënti doon ak ku mënti doon lii dañ ko soxla ci yow waaye nag njiit dafa am leneen lu nekk ci ginnaaw mooy dafa war a nekk royuwaay ci lislaam te bépp jullit ñun dañoo am ay royuwaay yu mat sëkk royuwaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga xamanteni moy model bi gëna a mag ci li yalla bind yalla sédel ko lolu dan ni wa in tutiuhu tahtadu takal ko garat ni ki ku ko rek am njub ngay am ba pare ni ni laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yen jullit ni am ngeen ci yonente bi yalla bi ab royuwaay bu rafet bu mag royuwaay mu war a tax ñu taxawaat bu baax jéem a xool alquran ak sallallahu alayhi wa sallam nan la dundee njiit njiit nag mën na nekk xalifa mën na nekk président mën na nekk kilifa ci këram mën na nekk lu ne waaye ak lu mu mënti doon ak njub dañ ko soxla ci képp kuy jiite bu ñuy xool alquran nag jiit moom njiit léeg-léeg mu tuddee ko imaam léeg-léeg mu tuddee ko xalifa ndax buñ demee ca qissatu firawn yàlla mi ngi wax naan woo jaalnaahum aimmatan yaduuna ila annaar baatu imaam la jiital ndax imaam lu tax ñu naan ki imaam mooy day jiitu naan ñeneen ñi topp ci gannaaw Firawna njiit la woon waaye nam doon dundee ak ñamu jiite woon loolu la yàlla ŋàññi loolu la alxuraan ŋàññi waaye ci beneen côté bi tamit yàlla ci alxuraan mu tudd ay yonent daan ne wa jaalnaahum aimmatan yahduuna bi amrina ñooñu it man maa leen def ñu ay njiit waaye dañuy gindi ci sama ndigal di digle li nga xamante ni man maa ko digle waaye di tere li nga xamante ni man maa ko aaya kon njiit bu ñu xamee ni mënul ñàkk waaye xanaa nit du toog rek daan moom mooy jiite boppam ndax boroom xam-xam yi ñépp xam nañ ni lu nekk dafa am ay was yu koy téye pour njiit am fokk aw nit daje ba pare bu nit ñooñu dajee am ku nekk ci nit ñooñu yor ay jikko yoo xamante ni day tax mu ràññeeku ci mbooloo ndax boo jiitee aw nit ba pare yow ak ñoom yéen yam ci jikko ci doxalin ci xalaatin daanaka njiit la du am njariñ ci nam war a amee njariñ moo tax dafa war a am ay jikko yu ràññeeku am xel mu ñaw ba pare it nekk ku jub pour mu mën a eh, dimbali ña nga xamante ni moom moo leen jiite waaye bu leen jiitee ci lan la leen di jiite lan moo tax mu leen di jiite fokk mu am hadaf maa jiite ñii ci lan nga leen jiite dama leen di jiite noonu rek loolu eh, day nekk abas maanaam loo xamante ni nit da koy def waaye amu ci jubluwaay te jullit dafa dépassé lu muy defee loo xam ne ni amu ci benn jubluwaay ci àdduna bu ko defee buñ xoolee njiit ci alquran buñ koy tànn dafa am ñaari jikko yoo xamante ni moom lañuy xool ci eh, ki nga xamante ni dafa war a jiite mm-hmm. mooy la ñëw ci xisatu Seydina Muusa ci suratul qasas ba doomi yonent yàlla Shuaybu di ko wax naan ko di wax seen bàyyi naan ko yaa abati stajirhu inna xayra man istajarta inna xayra man istajarta alqawiyul amin mooy alquwa mooy kàttan ñu mën koo firee kàttan ak al amaana mooy kóolute alquwa kàttan googu mën na nekk ci yaram waaye katan bi yaram am na lu ko ëpp lu ko ëpp solo mooy compétence li tax ñu bëgg nga jiite est-ce que mën nga ko loolu nag day dépendre ci la ngay jiite bu fekkee ni ci lu jëm ci wàllu xam-xam la est-ce que kooku jàng na ba xam ko ba mën koo jiite bu fekkee lu jëm ci wàllu atte la est-ce que xam na nu ñuy àttee est-ce que ñaw nam xel bu fekkee lu jëm ci wàllu doxalin la est-ce que moom mën na nu muy doxalee ba ba ñu war ko jox kon kon alxuwa jooju kàttan gi maanaam compétence lañ ci jub buñ demee ci beneen euh, wàll gi muy al al amaana al amaana li ci ëpp solo mooy nga nekk ku fidèle nga nekk ku honnête ba li nga xamante ni dañ la wóolu ba yëkkati ko teg ko ci sa loxo nga sàmmal ko ñi nga xamante ni ñoo la ko dénk ndax kat responsabilité la yonente bi salallahu alayhi day wax ni kullukum raa'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi képp ku ne ci yéen ab sàmm la te bépp sàmm nag daañu ko laaj lam doon sàmm naka la ko sàmmee kon mu nekk beneen pàcc bi ñaar yooyu bu dajee incha allah bu ci nit ki góorgóorloo dina am leadership boo xamante ni lislaam dina ko gërëm bu jàllee ci loolu ñu xool ni njiit doxalinam dafa war a wuute ak doxalinu askan wi loolu nag buñ ko waxee mooy ni ci gis-gisam warul yem ak ñi nga xamante ni yegguñu fa mu yegg ci jikkoom warul mel noo xam ni ñi mu jiite buñ ko gisee daan ni lii de suñ ko xamoon duñ ko jiital dafa war a nekk benn model benn royuwaay waaye pour mu mën a nekk royuwaay ci ñi nga xamante ni da leen jiite fokk am ay mbir yu bari yu daje ci moom mbir yooyu mën nañ cee tudd war na nekk nit ku oyof waaw loolu buñ xoolee dundub yenente bi sallallahu alayhi wa xale yeeg jaam yeeg ñépp dañ ko daan taxawloo Bunyi ñuy wax mu déglu leen bu bëggee mu fajal leen seeni soxla sallallahu alayhi wa sallam dem daal leen dimbali ci seeni aajo man lañ cee tudd tamit li nga xamante ni mooy ashura maanaam njiit nekkul ni yow yaa rek sa xel dafa doy li ñuy wax xel du doy bu ko defee boo jëlee sa xalaat ngay déglu askan wi tamit ñoom it ñuy joxe seen xalaat nga dajale xalaat yi xool xalaat ba ci gën a jub loolu day tax euh, nga am luñ naan rushd buñ xoolee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dundam gi bëri na ay exemple yu mu joxe ci loolu te loolu yàlla moo ko digal sallallahu alayhi wa ni ko wa shawirhum fil amr mbir mi dee ci diisoo saxaaba yi te noonu yonente bi sallallahu alayhi wa doon ko defee comme ci xaswatu badr comme ci xaswatul xandaq ba nga xamante ni yéefar yi war nañoo ñëw jullit ñi néew amuñu nuñ def Salmaanul Faris yi nga xamante ni perse la xalaatam moom lañ jël te keroog yàlla ci moom la jaare la ba jullit ñi yàlla sauvé leen ci xare boobu noonu tamit la ko saxaaba yi doon dundalee Seydina Aboubacar Seydina Omar ak uh, xulafaa yi topp ci ñoom ñëpp bokk na ci tawziul maham maanaam mbir buñ la ko dénk rekk nga aakimoo waaye dangay xool lii nii am na ku ko man ci mbooloo mi xaaral ma dénk ko loolu nag na fekk mu leer ni kii nii man na liñ koy dénk ndax bu yàqoo ci loxoom moom responsable la ci waaye yow mi ko dénk bu fekkee ni xam nga ni moom mënu ko nga def ko ni sama xarit la wala affaire yi parparloo wala yooyu responsabilité bi nga ciy am mooy gën a rëy ndax mbooloo mi yow lañ dénk buñ xoolee ku mel ni rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam gi loolu def ci feeñ lu bari ndax waxuma la ay nit waaye ay gàtt rek boo boo boo ko yoree ku nekk dinga xam fam ma ne kon boo jiitee ay nit tamit war nga def tout pour xam ku nekk ay compétence am bu ko defee ku nekk li nga ko mën a sedd pour mu doxalee ko mu mën koo doxalee ni ko askan wi di gërëme yonente bi saxaaba yi di leen wax ni afradukum zeyd saxaaba boobu zeyd mu ni علم الفرائض موي ميراث دا خامتي ني دا فا نيك خام خام بو جافه ا آه، يونت بي صلى الله عليه وسلم نينا صحابه يين زيد مو لين مان تي والو فرائض دا خامتي ني لولو بو ويرانتي ولا خيتو ولا لنت لنت بو امون تي آه، والو ميراث كون واخو زيد موم فوفو موي موي واخ وانا جيس كو ملني خالد بن nga xam ni moom jàmbaar la woon boo xam ni moom dundam yépp da koo xat ba yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa tuub xaalid dafa tuub sallallahu alayhi wasallam tuddee ko sayfullahi maslul nga xamante ni moom dundam bi lépp jiite ay xare la nekkee ba ci xilaafatu sayidna omar nga gis mu ni aminu hadihi al umma abu ubayda amir ibn al jarrah mu ni ki nga xamante ni moo gën a wóor ci xeet wi mooy Abu Ubayda Amir ibn Jarrah maanaam saxaaba yi ku nekk la nga gën a man sang bi sallallahu alayhi wa xam na ko ba pare di la ko seedeel maanaam lu ñuy jàngale ci loolu mooy nii ñi ngay jiite war nga xam seeni compétence ba loo ci war a defloo nit mu leer na la ni kii nii dina ko def na nam gën a rafetee waaye bokk na ci loolu tamit njiit ak loo jub jub loo baax baax loo mën a doxal lu la nit ñi gërëm gërëm dafa am beneen responsabilité bu mag bu lay xaar mooy yow boo fi jugee ndax bu fekkee ni lépp dafa yem ci yow képp boo fi jugee mën naa mbir mi yem fa de te nag mission jullit ci kaw suuf warul nekk loo xamante ni day yem ci faatoom ndax bu doon loolu kon lislaam du yegsi fii ci ñun waaye loolu responsabilité leader la mooy mu préparer beneen génération boo xam ni moom bu fi jóge woon ndax euh, dund dund moom ci loxol yàlla la nekk te yàlla nee na moom kenn buy rot day day bette laa tax tiikum illaa baq léegi nag pour nga waajal relève bi nga xam ni boo fi jógee rek dañuy jël continuer waaye continuer comme ni nga doon doxalee wala lu ko raw loolu njiit da ci am responsable responsabilité bu mag te buñ xoolee sallallahu alayhi wa sallam ñaar ñi ko gënoon a sës muy Seydina Abu Bakar ak Seydina Omar ak ñi ci topp mu Seydina Osman ak Seydina Ali maanaam préparation bi mu leen defal moo tax ginnaaw bi atte jullit ñi monde islamique bi yépp atte bu mucc ay waaye tasaare lislaam ba fam yeggoon te it lépp li nga xamante ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ko doon doxal ñu fas yéene taxaw continuer mission boobu Seydina Abu Bakar euh, ba yonente bi sallallahu alayhi faatoo am nañ ci arab yi ñu bañoon a joxe asaka ci waaye ak lim ñi lewet lewet dafa taxaw jàmmaarloo ak ñoom ndax kat yonent bi sallallahu alayhi dañ ko ko doon jox te loolu ak ñi woy néew doole lañ kon du seetaan sang bi di fi jóge loolu di yàq ni ki noonu Seydina Omar noonu la continuer mission bi ba xulafa yooyu yëpp jàll ba ci dawla umawiya doyelawaat yi ci yi ci topp yëpp ba mu yegg si fii bu ñuy xool loolu ñëw xool fu mel ni Thiénaba Thiénaba bu ñu ko tuddee ci at ci Sénégal sa xel dem ci dëkku diine kon loolooy suñu sakk mhm. muy te bu ñuy xool maam Amari ak Thiénaba yi ni bëree fii ci Sénégal waaye leader ku dul leader mënul def loolu moo tax alu sa Alioune Guèye yal na ko yàlla yërëm moom baatu qaa'id sax la utilise ci woyam boobu mu ni qad kaana qaa'iduhum fi lxarbi shaykhahumu abdal ilahi fa mansurun bi ka jooroo muy wax ni ki jiite woon leader bi leen jiite woon ca xeex ba mooy cheikh abdallah nga xamante ni fii ci kajoor lañ ko dimbalee wala fii la euh, jóge leadership boobu nekkoon ci moom moom moo tax ca sàmba Sadio amoon 11 février mm-hmm. ñu gis ni taxawaay bi mu amoon ci xare baag jom jaag fulla ya loola tax ñu def ko mu nekk imam ba mu fa jógee lépp loo xam ni jiit ko war a am dundam li ci des yépp noonu la ndax buñ xoolee ba muy wër canaba wër na lu mat juróom-ñaari at waaye ku jiite dañ naan la waroo xàdd ndax li nekk sa gannaaw moo tax ba mu fa jógee dem na piir dem na jaayaan euh, dem na ñooro waaye lépp rek fu mu dem xam ne du foofu mu bañ a xàddi xam ni li muy wut bu bakkan rotul dina ko mos am ba yàlla indil ko fu mel ni cene waaye yar préparer génération boo xamante ni ñoo war a doxal mission bi moo taxoon muy wër bërëb boo xamante ni dina fa mën a jaamu yàlla dina fa mën a yar dina fa mën a jaamu yàlla dina fa mën a yar ndax kat faxtaara maskanahu lu tax mu tànn cene حبا لتربية الأجيال بالعلم والأخلاق ba mu fi jógee it xulafaa yi ñëw ci gannaawam yépp ndax maam ma wartaala ba muy jël xilaafa gi booba nekkul woon mag ci at waaw mu leer na ne buñ ko préparé wul woon du mën a doxal mission bi comme ni ko baayam doon doxalee waaye mission bee continuer ñuy def la nga xamante ni moom la lañu donn ci mag ñi mooy taxawu diine ji taxawu uh, lislaam ci fànn wuñ ko mënee ak mu jamono di doxee ñu ànd ak jamono waaye mu bañ a yàq ci suñu diine dara bañ a yàq ci suñu pas-pas dara ba tey jii Thiénaba Kajoor dekki Thiénaba chenaba canaba gosaas ak yenen cebeeg dekk yu mel yoy yep moy ni lamam ñu ña pour tas leru l'islam ci rewum senegal yalla ngi leni dimbali ba ñom ñukay am waye lu len mayon lool moy dañu amon leader bo xamni ni li l'islam soxla ci njit yalla da ko defalon mu nekkon ku jup waaye nekkoon ku wóor waaye daan dimbali jaam ñi daan bay di dundee daan nekk ci jàkka ji di jaamu boroomam waaye yoroon ab bërëbam ku feebaroon moom moo la daan faj moo xam nag feebar bu mënti doon feebaru yaram walla feebaru xol ndax ca xasida ga Oustaz Alioune ba tey mi ngi naan amalu da cheikhi taalimun wa tarbiyatun kadaka zar'un wa tamridun ki góoroo jëfam yépp mooy yar ak jàngale ak liggéey ak jaamu yàlla ak di di faj jaamu yàlla yi kon kii day góor dëgg la ñun nag wàccana ba lii lañ doon kon yaa xaw wàccana ba hada turaasukum siiru ala hadihi te moytu ak réeroo yal nañu yàlla defal ñu xam dëgg-dëgg mag ñu baax ñi ñu am waaye yàlla may ñu jom ak pas-pas bu wér bu ñu leen i toppee ba ñoom li leen yàlla mayoon buñ ko amul it liñ fi bàyyi woon du du du réere wala du sànkoo ci suñuy loxo di leen baalu àq di leen baalu àq di ñaan yàlla mu dajale waat ñu fi ay at yu bëri ñu di gën di jige suñu boroom waaye di gën di def lu baax di yéenante lu baax di jéggalu ñëpp lu ci jub ngeen xam ni mooy suñu yéene waaye lu ci nekk safaanit seeni xel yu jub daat koy mortali in uridu illa al islah mustapha wa ma tawfiqi illa billahi wasalaamu aleykum jërëjëf oustaz Alpha Mahmoud Diop ci tomb bu njëkk bi nga xam ne traité nga ñu ko vraiment abordé nga ci ay tomb yu am am solo mu doonoon sujet bu am solo muy alqiyaada al rachida fi xitaab al quraan yi loolu nag bu ko waxee ci kàllaama wolof mooy njiit taxawaayam ci li nga xamante ni mooy discours al quraanu karim ban taxawaay la ci amoon ci wàllu jiite mu indi ci ay tomb yoo xam ne yu ama am solo la mu jukkee ko ci alquranul karim ci ay exemple yi ci des tamit mu jukkee ko ci siratu nabawiya muy njàngalam yonente bi alayhi salaatu wasalaam kon Oustaz Alpha Mahmoud Diop ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax ci tomb yu am solo yi nga ñu indi di fàttali mbokk yi ba tey ñu ngi fii ci Canaba Kajoor ren di quarante-quatrième édition ci gàmmu Canaba Kajoor waaye nag ba tey mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi ànd ak télé yi ma tuddoon sànq di ci dolli beneen télé bu ñuy tuddee Samsu FM bu ñuy tuddee Cosaan FM rajo Cosaan FM moom mi ngi fii ak waa Shamsu TV ak waa Thiénaba TV xam naa ci noonu rek la ñuy bërëmoo jàll ci suñu sëriñ oustaz Cheikh Kayre mu ñëwal ñu ci beneen tomb boo xamee si ni mooy doon ñaareelu pàcc bi ñu soog a tëj émission bi comme sànq oustaz Alpha Mahmoud ñëwal nañu ci maanaam taxawaayu njiit ci maanaam discours alquraanu karim kon nag il faut ñu jël ci sunu mag ñi exemple koo xamee si ni dund ko dund ci jamonoom maanaam ñi daan ci teg seen bët ñu tànn ci jëmm ju sell ji nga xamee si ni mooy sunu sëriñ ma Madika Seck ñu bëgg a xam ban exemple la ñu sëñ Cheikh mën a waxtaanee ci jëmm jooju ak ñenn ci mën nga xamee si ni doon nañ dundal loolu kon Oustaz Cheikh Kairé bisimilah ci kàddu bi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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. rahmatullahi ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu àq di leen bal tey ñaan borom bi subhanahu wa taala mu boole ñu jéggal ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala lépp loo xam ne mas na koo dige ci lu baax ci pàkk bu baax ci waxtu bu baax ci jataayu nit ñu baax yal nañu ko suñu borom subhanahu wa taala boole defal comme ni ñu ko xamee rek ñu ngi jiital ci nuyoo bi suñu xalifa sëriñ Assane Seck di xalif général bu cene Ceneba waaye di ko nuyu teg nuyoo bi ci loxoom mu jàll ci loxoom njaboot gi yépp noonu lañuy nuyoo chef de village ba sëriñ Alsane Ñaan Seck waaye noonu lañuy ñuy itam ki nga xam ne moom la yàlla def mu yore kàddu kër gi di Alaaji Ngañ Demba Sall waaye ñu ngi nuyu bu baax itam suñu sëriñ sëriñ Pape Mortada ma dikke di ko ñaanal yàlla na yàlla doon di ko sàmm yàlla na yàlla doon di ko wér noonu lañ ko nuyoo nuyu njaboot yépp waaye nuyu nañu itam li nga xamante ne moom la yàlla def muy kilifa dëkk bi di imaamu ratib bi muy suñu sëriñ sëriñ Talla Seck Abdoul Aziz di ko nuyu di nuyu mboolem ñu topp ci ginnaaw waaye noonu la ñuy nuyoo itam ñi nga xamante ne bi ñoom leen bokkal plateau bi di leen sant bu baax di leen gërëm muy ko ci mën ne oustaz Ndiasse waaye oustaz Alpha Mahmoud Diop di leen gërëm bu baax itam média bi nga xam ne ñoo nekk suñu kanam ñu ciy jiital suñu mbokk suñu mag muy Serigne Ibrahim ak waa Cosaan FM yépp waaye sëriñ Maar ak Shamsu TV waaye noonu la ñuy itam suñu mbokki Ceneba TV yi nga xamante ne ñoo ànd ak sëñ Alpha ak ñun ko bokkal ñépp waaw mu mel ni waxtaan wi ni ko sëriñ Alpha waxe sëñ Jaase leeral ci loolu thème bi dafa nekk thème boo xamante ne thème mu actualité la ndax barab yu mel nii bu ñu ci dajee lenn rekk moom lañ fi war a jële muy bind boo xamante ne bi jullit bi ak jaamu yàlla bi da ci mën a jariñoo dara ci dundam ci nekkinam ci àdduna ba bu demee yomal xiyam suñu borom subhanahu wa am lu mu ko ci fayee ñu mel ne jamono ji ñu génn dañu gis ne am na lu xewoon te li xewoon mooy ay nit dañoo jógoon di laaj pour ñu dénk leen ñu nekk ay njiit war a jiite askan wi ay nit itam jógoon jël seeni baat nit ñi ñooñu doy ñu war leen a jox ñu jiite leen te loolu lépp lislaam moom bàyyiwul dara maa farat naa fil kitaabi min shay alquran bàyyiwul dara te moom moom la suñu borom subhanahu wa taala wax ne allahu nuuru samawati wal ardi masalu nuurihi ka mishkaatin fiha misbaaxun il misbaax fi zujaajatin il zujaaja ka annaha kawkabun durriyun yuuqadu min shajaratin mubaarakatin zaytuna la sharqiyatin wala garbiya yakaadu zaytuha yudiu walaw lam tamsashu naarun nuurun ala nuuri yahdi allahu li nuurihi man yasha ba aaya ba jeex liñ ci bëgg a wax rek mooy alquran moom la suñu borom subhanahu wa taala wan ñu ne ñu mooy leer gi mooy yoon wi nga xamante ne bi moom mooy leeral leeralal nit ki fépp foo xamante ne bi fa la jëm moo tax ñu jël al alqiyaada rachida fil xitaabil quraan yi maanaam njiit lu jub nan la ko lislaam jàngalee waaye nan la ko alquran jàngalee bu ko defee moom la sëñ alpha leeral nañu lu bari ci njiit lan mooy njiit ak ni ko lislaam yépp waaye alquran fu mu ko wax waaye nag ci njiit yooyu itam ñun day baax ñu am ay royukaay suñu borom subhanahu wa taala bu ñuy wax la qad kaana lakum fi rasulillah uswatun hasana yonente bi sallallahu alayhi wa sallam laa leen def mu nekk seen royuwaay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam leeralam ci benn daan na ñun yonent yi day dañ donn waaye lenn lañ ñuy donne xam-xam ak jikko mu waxaat daan ne yàlla li mu digal yonent yi loolu la digal jullit léegi moo tax ñu bëgg a jël kenn ci suñu mag ñi suñu kilifa yi nga xamante ne suñu borom subhanahu wa taala boole nañu ak ñoom ñu jël seen exemple ci alqiyaada rachida boobu ñoom nan lañ ko amale woon ak ana naka lañ ko doxale woon ñoom ci seen jamono ñu jël ci cheikh madika sek radiyallahu taala an. bu ko defee tomb yi nga xamante ne moo nekk ci alqiyaada rachida yépp bu ci nekk dinañ ci jël benn ñu wax nan la ko dunde woon nan la ko defe woon moom ba nga xamante ne bi da ngay gis ne point yi suñu borom subhanahu wa taala tegoon ci kilifa yépp kilifa pour mu jub ni ko alquran waxe bu ci nekk nan la ko dunde nan la ko dëggale moom ci dundam moom cheikh madika sek بقى نتي القران سني برام سبحانه وتعالى بما وقت القران ان الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر سني برام سبحانه وتعالى بما وقت القران دي واخنا نين ني بيس بو خامي ني دمنا با جوخ لين توبا با جوخ لين كاتان سي سوف ndax lol lepp xéti ñun ñëpp ci suñu maam aadama la ñu jógee alayhi salaam aadama yàlla wàcce ko ci kaw suuf bi mu koy wàccee ci kaw suuf lan la ko waxoon wàcc leen ci kaw suuf suñu borom subhanahu wa taala boo xoolee ci alquran bi mu naan alif lam mim daalikal kitaabu laa rayba fiihi hudan lil muttaqin dafa mel ne dafa am benn wax bu njëkkoon a wax moom la doon tontu ci alif lam mm-hmm. ndax bi mu wàccee suñu maam aadama ak maam xawaa ci kaw suuf dana leen fa imma yatiyannakum minni hudan qulna hbitu minha jami'an fa imma yatiyannakum minni hudan faman ittabaa hudaya fala xawfun alayhim wala hum yaxzanun wàcc leen ci kaw suuf yow aadama ak awa ngeen dem waaye maa ngi leen di xaar ngeen daje si waat ak man ëllëg bu ngeen daje si waatee man ëllëg ma xool kan moo ma ciy indil hudan ma man koo fay képp koo xamante ne indil na ma hudan day bu keroogee na xam ne moom day du tiit du ragal mu mel na suñu borom subhanahu wa taala daf ma bëgg a wax lan mooy hudan ji may laaj mu ne alif lam mim daalikal kitaabu laa rayba fiihi hudan muy def ñu alquran ne daalikal kitaab booba téere mooy téere ban bi nga xamante ne laa ba fiihi amul lenn luñ ciy sikk sàkkal hudan téere boobu de mooy njub ji ma leen di laaj mooy alquran dëggal boo xamante ne bi ma Madické sekk dëggal na ko boppam ci loolu dund na ko ci alladina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atawu zakata ba hudanka mooy doy ne sëkk cu ne ginnaaw bi nga xamante ne yàlla wërsëgale na ko mu juddoo ci askan bu baax ci ñaari jur yu baax yàlla wërsëgale ko mu juddoo ci pénc mu baax péncum xam-xam yàlla wërsëgale ko ginnaaw bi ay wayjuram bëggee lu baax yóbbu ko ci barab bu baax mu am fulla tool ne sakko fa lu jar muy jaar-jaaru jangam yeb te leppam mu def ko ci li nga xamantene bi mom moy alquran ñi nga xamantene bi ñom la bokkalon di jang ci barabu jàngukaay yi ba ca ndar li ñu sédé ci mom moy ne bu démé ba nga xamantene ne donkay daara yi dañ daan jappalenté ci seen biir ci allu wa ko ne di dimbali sa morom ca lan ko tané ñuy dajé ay guddi di waxtaan mom dañ ko won alquran tafsirul alquran dañ ko féetale woon ne ko yow de ko def bu demee ba guddik àjjuma te suñu borom subhanahu wa taala dafa moom la mu wax mooy bu ëllëgee de ki nga xamante ne mooy taseeg man te du tiit du ragal mooy ki may indil alquran mooy ki may indil daalikal kitaabu laa ba fii kon loolu day mel ne bokk na ci li tax li ñuy waaj wax ci moom ndax ñenn ñi def ko daan bàkke naan Seex Madicke Seck nit la koo xamante ne bii nii dafa am fit fit bi dafa dafa reyon ma sha Allah kon melna ne li indi won fit wi moy fala khawfun alayhim gi nga xamantene mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala waxon ne bo fekkantene melna nonu day duñu tiit wala yahzanun ta duñu ta duñu jaq moy alladina makkanahum fil ardi aqamu salata wa atawu zakat nek julli pir di taxawal julli di joxe asaka di def lepp waye pour nga nek njit kilifa ak njit lo man di don rawati na njit lo xamantene nit ñi yàlla lañuy wut ci yow suñu borom subhanahu wa taala amna critère yu mu tegon waye bokku na ci bi ci njëkk fa bi ma rahmatin min allah lin talahu wala kunta ghalid al fardan غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزبت نك fatawakkal ala allah lol lepp nak pour mu nek ci nit ki pour nit ki man yi faaw loolu yàlla wax ci alxuraan nekk ci moom mabda u shura maanaam njiit li kilifa gi sëriñ bi jëwriñ bi war na mën a nit ñi alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina wa mawlana muhammadin wa ala wa ashaabihi wa man tabiahum bi ihsan ila yawmi wa radiyallahu an sayxina wa sayidina صاحب الختمية والكتمية مولانا أبو العباس الشخصي أحمد تجاري سيف رضي الله تعالى عنه وجزا الله أيضا عن جدنا ووالدنا ومربنا المجاهد مام أحمد بكسك وجميع مقدماته وخلفائه mbokk ñi nga wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu mbooloo ñu ngi seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew kenn ku ne ñu ngi lay fekk fa nga toog ñu ngi la ci baat bi ñu yàlla tànnal bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di ñaan nuyoo boobu lim làmboo te mooy jàmm yàlla ak yërmandeem ak barkeem yàlla yàlla defal la ko waaye defal ko fi képp ku fi teew muy góor jigéen mag ak ndaw waaye di ñaan nuyoo bi lim làmboo yàlla yàlla defal ko suñu maam yu baax yi nga xam ne ñoo tudd fii suñu gannaaw ku mel ni maam Masayer fa tabarakallahu di waajuru al mujahid maam Ahmad Ndaw Seck waaye ak sëtam bu baax bii nga xam ne ñoom ñaar ñoo bokk ñu uufal leen ci kanamu jumaa bi di Serigne Malick Seck borom yàlla nee na wa tabaarakallaahu ak mbooloom jullit ci suuf yépp bu ko yu baaxee maam Ahmadullah Seck maam Mortala Seck sëñ Ibrahima Seck maam Ibra Penda Seck wa tabaarakallaahu ak mbooloom jullit ci suuf yépp fa tabaarakallaahu ñu ngi koy ñaanal baax ñu ko ñaanal suñu kilifa yi nga xam ne ñoo la jiitu ñu ñëpp di nuyu fa tabarakallah ñu bokkal jotaay bi ku mel ni oustaz Cheikh Kayre fa tabarakallah ñu koy nuyu baax di rafetlu xam-xam bi di ñaan yàlla yàlla yokk xam bi yàlla yàlla yokk fasaha bi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di bu baax ci xam-xam bu leer bi nga xam ne génn na ko ñun ñëpp di nuyu ku mel ni oustaz Ndiasse moom it fa tabarakallahu di borom xam-xam boo xam ne macha allah ñëpp ko ràññee. moom it ñu ngi koy nuyu baax di ko ziar di ko ñaanal yal na yàlla yokk xam-xam bi yal na yàlla yokk fasaha bi ci barke alquran di nuyu sëriñ alfa mamadou moom mooy borom kajoor fa tabarakallahu yaakaar naa bu toogee fii def fi waxtaan bu am solo fa tabarakallahu loolu laa xaroon ndax it ñëpp xam ni sëriñ alfa mamadou ni meloon dëkk bi ci la ba kajoor ñëpp xamoon kon boo toogee bi def waxtaan woo xam lu mën a dégg la ñëpp mën koo jëriñoo yaakaar naa njaboot gi ñëpp danañ ci biir danañ ci kontaan waaye di nuyu fa tabaarakallaa ku mel ni Mar Diop mii ñu jàkkaarloo moom Shamsu TV nga xam ne wax rek loolu maar ne lu mu def ci kër gi jëru sant ndax lu fi def rek bokkam la ko defal ndax ñoom ñoo bokk lépp ñoo bokk nday ñoo bokk bàyyi fa tabaarakallaahu depuis lu mat quatre jours boobu ba léegi ñu ngi fii ñu ngi ci ànd ak ci liggéey bi lépp lu fi ànd ñu jël ko tasaare ko ci biir réew ak ci bitim réew kon ñu koy ñaanal baax seen nuyu sëñ Xalifa Njaay ñi nga xam ne moo fi teewal Thiénaba TV wa tabarakallah teewal ku mel ni sëñ Alpha Sarr sëñ Njambi Guèye nga xam ni Thiénaba TV teew na boo xam ne ñoom seen taxawaay fii ci Thiénaba ak ñoom ñëpp comme ni depuis ba sëriñ Madické Seck bi ba léegi loolu mosaana gàmmu ko dina ba mu jeex dañuy jël lépp def ko ci kaset jox ko sëriñ Madické sëriñ Madické boo waxee mu ne ah man de ak lii man doxaru xaani ak li xew ci gàmmu yëpp du ma ko xam hmm. taxawaay bu démb ak bërki démb boobu ba léegi moo waral ñu ne bu gàmm bi jub si ñu bàyyi seen yitte yëpp taxaw taxaw ba am solo suñu xam ne jërëjëf ñu ngi fi teewal ñëpp xanaa jikkati ay kàddu yu ndaw rek muy kàddu sant ak ngërëm ñu jóge ci suñu kilifa yi ñëpp Serigne Mourtada Seck xalifam Serigne Madike Seck borom yàlla leer jotaay bi la liñ fi doon def moo ko doon defal ñëpp ku ni gàmmu Thiénaba ci Serigne Madike Seck borom yàlla leer waaye sax xel di leen ci taawam bii di sëriñ Mourtada Seck mm-hmm. kon yaakaar naa te sëriñ Madické nag dafa nekk jëmm joo xam ne xam-xam da koo ñoroon lool sëriñ Madické xam-xam da koo neexoon xam-xam da koo bëggoon mm-hmm. ku daan wax ci xam-xam rek wala nga bëgg xam-xam rek sëriñ Madické def na xarit moo waral lii ñu def fii di ko wax fa tabaarakallaa donte teew fi ci saaxir mm-hmm. mel na ni teew na fi ci baate ndax dafa am kàddu bu mus a wax moom sëriñ Madické dañu won nitu yàlla buy dund ak yow ñaari beut lay xolé waye bu la wone gannaaw fukki beut ak ñaar lay xolé la waral loolu nak mu nitu yàlla yi xulubul awliya ilaha hayl tarahu ma la yarahu al mubsirun wa nitu yàlla ñom yàlla leen defal lo xam dañuy gis lo xam yow yor sa beut sax di di xol gisoo la mo waral ñu jàpp ni donte teew fi ci saahir waaye teew na fi ci baatin serigne ma digge nag fa tabarakallahu nekkul jëmm joo xam alxuraan rek ko ñoroon ñëpp dàkkantal ko borom yàlla li ndax la ko sëriñ Mansuur Si borom daara di waxoon ni ko sëriñ Madika mu ni ko seet yow lan moo tax doo ñëw di ma sëriñ Madika ni ko ñett yi rek moo ma téye ko yenn ñett mu ni ko daara ak tool yi ak jàkka ji sëriñ Mansuur ko alhamdulilah bu ma tontee ndax bu nee la borom yàlla ne nga waxoon ni man leneen mu téye bu bokkut ak ni kon dëppoo ak tur yi lay wooye daanaka sëriñ ma dikkee ñi dem daara de bëri na waaye fu nee borom daara ji ñëpp xasal yëpp ci man lay dem daanaka yow ñi wax alxuraan bëri na waaye yàlla ne xel yëpp ci war dem kon Sénégal ñëpp war a sant yàlla waaye rawatina man ak yow tey wax alxuraan nag ñu koy def bëri na nag li tax yàlla jagleel ko ba fu mu wax ñu ne borom yàlla ni nag loolu beneen affaire ndax bëri na ñoo xam ne ñu ngi wax alxuraan ji génn seen làmmiñ waaye est-ce que ni ñu koy jàngalee ni ñu koy génnee islam yi est-ce que mën nañ koy jëfe wala déet loolu mooy problème ndax alquran dañuy na bi alsinatihim maa laysa fii xuluubihim bari na ñuy wax kàddu gi di génn seen lam yi waaye la ñuy wax àggul seen xol waaye sëriñ ma dikk nag jamono bu musaana waxtu nga jariñ ci gis ci sa bopp waaye boo musaana dikk këram ba jaxasoo moom sax mbëggeel boo amoon ci sëriñ ma dikk day yokk ndax ak suufeem ak wàcce bu mu wàccoon boppam mu leer la kii li muy wax ci tànt yi lu ñu dund la ci biir ak ci biti bëri na ku ñëw ci kër gi daane sëriñ Madick Seck borom yàlla laa soxla ñu ne la kii mooy sëriñ Madick nga ni déedéet ki ni borom yàlla ne laa wax de ñun la waaw moo nekk ne nga ne ah man de loolu na ngir lan lu mu wàccee bopp sëriñ Madick bu mu saan amay gan sax moo daan dem ci waañ bi anam fu leen tool yëf yi ngéyeen bi moo yëkkati raxas jox la moo lay toppatoo loolu lépp lu ko war mooy wàcc bu mu wàccoon boppam moo waral moom jëmm la joo xam ne la sayyidatuna Aïsa ban ko laajee ban ko waxee ne ko njool màkk lan mooy jikkoom mu ni kaana xulxoo alxuraanu karim njool màkk na jikkoom mooy alxuraan waaye sëriñ Madické noonu la meloon xoolal Cheikh Kayre li mu wax léegi ci njug sëriñ Madické dafa kàddu gu am solo dañu laan ba naas yi benn baat rek moo ci yitteel yàlla na laan ba naas bi li muy rëy rëy rëy nee na benn yàlla muy xudda ñu ni ko luy loolu mooy boo mokkal alxuraan mokkal ki gën a yéeme te njub nekkul ci yow alxuraan jëluñu ko dara moo waral bu ñu nee alif laam miim saalikal kitaab bi yàlla waxal leen dañuy laa rayba fiihi huddan léegi bi mu nee huddan nag li ci tegaan lépp da doon saraawaat baara huddan ndax bi yàlla nee huddan ñu ne ko waa huddan mooy ñan mu ni alladina yuminuuna bil xayb wa yuqimuuna salaata wa mimma razaqnahum yunfiquuna walladina yuminuuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil axirati yuminuuna yàlla daal taggaat gaa yooyu dani ñi melokoone melokoon ni nu ulaayka ala faddan min rabbihim wa ulaayka mu muflihun moo waral sëriñ mati ci daan wax lan ba naa si benn baat rek mu ciite yàlla mu faddan ta ñol makka yalla wax ak mom ci alquran gis nga ba ñu waxoon ko fastaqim kama umir wa man taaba maxaka wala tatqa yo ñol makka nga jup jël sa tànk tek ko siraatal mustaxi ta ñol makka ñepp xamni musta ci jup ndax rasulun karimun ma hasa haqqan borom ibnu Muhayb ne ne boo mosee gis koo xam ne dund na ba dundam jeex te musta may borom mu njol màkk waaye am na loo xam ne bu ko yàlla waxee jofa njol màkk mu topp ci ginnaaw watal moo waral njol màkk bi aaya bu wàccee dégg naa dafa jooy ba ranqoo ñi di wàccire saaba yi dañu ko yaa rasulullah lu waral sa jooy métti mu ni fastaxim kama umirta jaaxalu ndax man ni yàlla bëgg ma jubi mën naa ko waaye wa man taaba maxaaka jim ci boole loola mu jooyloo ndax bu ma sañoon képp ku topp sama gannaaw jub gi ma jub man njol màkk nga jubu jub nga xam moo waral sëriñ Madické nag nekkoon koo xam yàlla mayoon ko jagleel ci alxuraan gis nga bi ko dàkkanteel ni ko borom yàlla ne fii la taale otoom dem ba Dakar dem ci rajo RTS daani li ma mooy borom yàlla ne jëlmee fa alxuraan ñu teg ko suuf bu ma ko bu mag ku mag koo xam ne mën naa la diwlatul bi sëñ Madické daalee la ni ko Madické mu ni ko sekk mu ni ko loolu bu ko bañ wax loo ko nit ñi yàlla moo leen ko wax la yàlla mi leen ko wax la tax moo wax la ko xam na ko daane ko nangul man nii maa ngi wax alxuraan waaye kenn waxoo borom yàlla daane ko loolu jagleel la boo xam ne yàlla moo la ko jagleel waaw ndax ñoom nag danoo ragaloon seen borom ragal gi ragal seen borom nag moo leen mën a may lu ne moom la Sëriñ Tuubaa bi junj naan wa haysuma taxaf ilaakal ahad yaqafka min xawfika hukulal ahad jamono boo ragalee sa borom bi nga xam ne mooy kenn yàlla day tàggat doomu aadama ci yow ba lépp lu war ma lépp lu cër dan la koy jox force wax mënu ci dara ndax yàlla mu ngi tàggat yoon moo waral sëriñ ma dikki nag amoon jagleel ci alxuraanu karim nekkoon koo xam foo ko tudd rek lettre boo mën a bind ci sénégal boo ci bindoon borom yàlla neen rek yam ci ñëpp fenlan ko yóbbu mooy taw sëriñ alfa mahmoud moo waral waa ji bi mu koy wax dañu ko yaa di borom yàlla neen li ñëpp wax te mu wér taqoo nga qur'ana ya am fulla saawaaj dañu ko yow sëriñ ma digg ay borom yàlla neen loolu nag ñëpp a ko wax waaye muy wax joo xam ne wax ju wér la ndax yow sëriñ ma digg da ngaa taxoo alquran ba sa discours yëpp fooy waxtaane benn discours rek ngay wax mooy yàlla moo waral ma ne ko taxoo nga quran yaa am fulla saa waay daani ko kajoor de bekki na tey tool yaa tam de jooyatunu bàyyi alfa mamadou am saamaa nga saa waay daani ko kajoor dekki na maanaam kajoor déewul woon waaye waxin la kajoor dafa mel woon ni démb ak bërki démb wax ko ci biir wax léegi bu jëkk bu musaan ñëw fi di gàmm si silaan yi lan daan dagg teg ko ci yoon yi ngeer yi lan daan jël teg ko ci yoon yi ngir lan ngir oto yi a jàll waaye tey jii tëli bi ñëw na raaraa bi bëri ba tëli ñëw bu jëkk bu musaa ñëw ci la ba kajoor ay làmp lañ fi daan taal ay làmp sondeel ak yooyu tey jii ci la ba kajoor làmp yaa ngi dëkk bi leer nañ tey jii ci la ba kajoor bu jëkk bu musaa ñëw ñëw bu mel ne feekoo ko fóon waaye tey ji yaa ngi ci fekk néeg boo xam ne fa tabaarakallaahu taaram ak ni mu sell ak ni mu leere fa sant yàlla mm-hmm. day waral waaje ni ko wa banayta masjidan mm-hmm. wa awsaxat qaryatan mm-hmm. wa awqatta misbaahan nawirtal xalaayiki ni ko yow sëriñ ma dikkee wa banayta masjidan tabax nga fi jàkka joo xam ne jàkka ji ni mu leere sell te lépp di yàlla kese ni nga ko leerale noonu nga leerale sax xolu taalibe ba duñ sentir leen duñ yëg leen lu yàlla kese waaye mu ne ko wax aw saxat xariatan dëkk bi yow sëriñ Madi ko doon koo yaatal ndax ñëpp a xam démb ak bërki démb ci la ba ko jot melu woon ni mu ne ko wax aw xatta misbaaxan yow sëriñ di ko yaa fi taal lampe boo xam ne koo mën a gis li muy wax guddee bu ci bëgg-bëggam mooy laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ni ko nawirtal xadaa i kilifi lënd lool lëndamoon yow sëriñ di ko yaa ko leeral la waral lool nag mooy sëñ Madi ko ci boppam danaan wax alquran waaye dinaan jëfi alxuraan waaye dinaan dund alxuraan nekkoon koo xam ne ku yàlla mayal la kon nag fa tabaarakallahu yàlla yàlla yokk leeram yàlla yàlla xare ko aljana yàlla yàlla wooye fa suuf ci kaw la ci barke alxuraanu karim yaakaar naa gàmmu gii ñëpp xam na sëriñ Madi gi daan wax rek daan na wax ni gàmmu gi gàmmu baatin la daan wax ni gàmmu gi gàmmu ndigal la bu dul woon ndigal bàyyi naa ko bu yàgg daan na wax ni gàmmu kajoor gii bu dul woon ndigal ndax bi yàlla dogalee doomam noppalu kokki di doomam ju naan sëñ Ibrahima Seck mu tudde ko sëriñ Ibrahima mu mag bàyyi sëriñ Jibril Seck bi yàlla dogal mu noppalu ca kokki feebaru bi yàlla dogal doomu sëriñ Madike bokk ci di nga naan keroog bi nee sëñ ma saxir sëñ Madike la doomam ji naan Ibrahima dafa nopp noppal di nga sëñ ma saxir keroog dañuy alhamdulilah ñu ne ko ah lu tax loolu mu ngi sëriñ Madike ni mu gëmee yàlla ni mu wóoloo yàlla ni ma leer ne doomam ji bu ko yëgee day xam ne dogalu bi yàlla dongal doomam dem mu mu gënal keneen doomam ndax am na ñoo xam ne gëmuñu yàlla wóoluñu yàlla sëriñ ma di ko joxoon sañ ma sax ni ko tey ji laa gën a taxaw pour joxaat na sama njaboot ndax xam naa ni nii dogalu yàlla la tax yàlla def kenn xamul fa tabaarakallaa doom yooyu bu noppoon na waa Louga ñëw si di ko jaale si fanaane fee si kar si kar su yéeme mën xëy suba daane ko bis bi dina bëgg nga may nu ci ndigal fu ñu ñëwatee ñu fanaane si kar def ko muy gàmm mu ni leen man kilifa la am muy sëriñ Alfa naa ci waxtaan ak moom digg naa bi ko waxtaan sëñ Alfa sa yàlla fa dajé kontaan ba dafa ag ci dal bis bi nga ma ñaan ndigal de fu ma gamu gàmmu ci na nawa bawal ba sëriñ mu jeex ta fàttil mu rattax naa leen parta bi yalla mo wara sëriñ mu dikki wax ni gàmmu kajoor dafa metti bu ñu wone ndigal tek na tek na ko suuf waye ndigal lo xamni ne mag ñi ñoo jox mo wara sëriñ mu dikki fonkon ko da daana wax ni nit bu amé lu dul benn bëñ ci gimi da koy fonk bëñ ba weex tàll daana ñun benn bëñ lañ am muy ci gamu ci na ba jox moo waral ci fullaam ak faydaam ak fitam bu musaa toog fii ci sëriñ bi daan la wax ni man gàmmu Kajoor laa am ku ma ci jàpp ma jàpp la ba faaw waaye ku ma ci seetaan ma seetaan la ba faaw te doo man ci man dara bu ko nit ñi musaa wax ni ko sëñ Madické waxal ñu defar télé bi ñu indi courant naa nga mu ni dama ni wax ji du gudd du gàtt ca na ba Kajoor gi ko yàlla nar a defar sëñ bi doo fi def dara li fi yàlla tudd mu war fee am insha allah lépp dina ñëw te ñëpp dem nañ ba gis loolu lépp te gis seen yàlla dimbali ko nag mu dund dund koo xam lépp rafet dana waxoon jol maag dañu ko tax tibta xayan wa tibta mayitan sag dund rafet na sag dem rafet na waaye sëñ bi ma dikkee lépp ma rafet 77 ans yu mu dund muy juróom-ñaar fekkat ak juróom-ñaar tolloog li mu kan kanzu nga xam ni kanzu nag secret la ci biir secret sëriñ ma dikkee dund loolu te li ci gën a yéeme mooy sëriñ ma dikkee dafa bëggoon mag ñi gëmul mag ñi ba ci dundam sax dafa am loo xam ne da koo jël ci biir mag ñi sëriñ ma dikkee ni góor gu dund at 77 ans yu góor gu ma dund maam Mor Talla Seck sëñ Madické loolu dund sëñ Madické sëriñ Ibrahima Seck 27 ans la toog xilaaf sëriñ Madické 27 ans la toog xilaaf ak bàyyam bi sëñ Alpha noppee quatre noppaloo 88 ba 2015 boo ko calculé 27 ans la toog 27 ans lay tolloo moo waral 27 ans yi maamam sëriñ Ibrahima Seck toog moom la toog xilaaf ak bàyyam moom sëriñ Madické jël ati góor gu mag jël xilaaf ak sëriñ Ibrahima Seck waaye nekkoon koo xam ne ku gëmoon bàyyam daan wax ni man de bi sëñ Alfama mooy dund damaa juróom sama bërëg teg ko ci moom te ba te li ma soxla woon leen rek la mooy bu ma gërëmee jàpp naa ni sama lépp baax moo waral sëriñ ma dikki nag ku amoon jom wax na ko gàmmu sëriñ Ibrahima si daan nit ku ne de lu ne war na la koo mën a wax nga mu bàyyi mu jàll waaye yaa ñàkk jom yoo xam ne dëgg la nee na kun ko wax war ngay xeex di xeex di xeex ba sa bakkan des ci waaye sëriñ ma dikki am jomam moo war a ji ci na ba Kajoor tollu fi mu toll yaakaar naa man damay faral di wax ne Thiénaba Kajoor boo fi duggee dëkk bi moo lay présenté ki fi nekkoon mooy kan mhm. ndax yow boo fi duggee ñun la jumaa ji nga ne waa jumaa ji ñan ñoo ko liggéey ñun la déet kenn ko liggéey la déet sëñ Madiki ko firi nga ni tëri bi ko firi ñu ko firi nga ni mbaar bi ñu la sëñ Madiki moo ko tàmbali te bi mu jumaa ji moom àgg laa yow xalifa ñi sëñ Madiki toog na benn bi daal ni ah man de comme ko jumaa ji àgg na alhamdulilah defalatuma fi yàlla dara xalifa ñaa ni ko sëñ wax mu ne xam nga dama leen nax kat man lu xibam lu ma yàlla doy xam nga ni dama guñ te boobu yëg na ni mission mat na moo waral mbaar mi bi mu koy tàmbal loolu ñu bëri ko fekk sëñ Madické moo toog ba mu yàgg mu ne mbaar mi bu ma nit joxati ñaar lu ma waay di jox jox ko pap sec ak pap gi ñu seq ji waaye man lu jëm ci wàllu jëm ci naan ko jox ci wàllu xaalis ma kenn joxati boobu matal la benn bis toog na fii ñu liggéey mbaar bàyyi njaas sal di ko defal ndox muy jàpp bàyyi njaas sal di ko ah sëñ Madické xam nga ni mbaar mi yéex na ko tàmbali maar mi bis buñ fi gàmmoo ci la ba kajo ba pare ci nga xam ne li nga daan def ci baas yi mett na mu ni ko ah, ah bàyyi jaasu kon mbaar mi des na ci gàmmu rek ah. mu ni ko waaw des na ci gàmmu liggéey kii li ci des bëriwul baax na ko bu mu kuulee ko xaar ah, fekk moom fi muy waxee moom ak fee fi muy waxee bokkul moom xam na ni mbaar du ci gàmm waaye kee moom mi ngi jàpp liggéey bi bu gaawee war nga ci mën a gàmm moo waral nitu yàlla kenn du moom sëriñ ma dikk fa tabaarakalla ko yàlla dimbali barki dimbali maa ngi ko xam ne nitu yàlla yi lu bëri na lu leen yàlla xamal ndax sëriñ ma digg gàmm kajoor gi duñ koy mu duñ ko mujj def xoolal bi yàlla dugalee mu ne ci feebar koo xam yow yaa ngi Dakar jékki-jékki woote téléphone woo bàyyi Abdourahim woo bàyyi Cheikh Tidiane li naa gàmm gi def foo mën mënoon ko ren du mën a am Xalifa Njaay ñoom baaram ne na ñu ne ko ah, sëñ bi xam nga li nga wax mu ne waaw xam naa ko kay gàmm kajoor dañ koy fom ba ba jëmi jamono dégg naa taalibe bi woote fu ne fii ba bitim réew kenn ko naa ah, sëriñ gàmm gi dafa toll ci niveau boo xam ne boo koy fomm dañ cee war a waxtaan ak taalibe yi nangam nangam nangam nangam ba mujj wax ci ëpp loxo am ñu ne sëriñ Madické mi ne kon feebar dafa ëpp loxo nan yóbbu rajo RTS xam ni sëñ Madické mi dara dalu mun leen sàllaaw li a xër rek ma li tax ma xam naa ko nit ñi wax wax mu ne ah dama ko jàppee di fii ñu teg ñetti fan sëriñ Madické daal ah ci la ba ko jëri suba am la fa xew sama yaay ñoom ñëpp ay toog sama yaay daal ni waa sëñ bi soxna salambu mi feebaroon bu dee moom la moom tay na bu baax mu ne li ma la xam naa ko jana ba kajoor suba dana am lu ko xew ci fajar gi ci la yàlla jël ak roo bi mu ne laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min asalimin moo waral nit yàlla yi seen mbir kenn xamee soo bàyyi sëñ madike masala ñëpp am ci moom yaakaar yal na yàlla yokk leeram yal na yàlla xare ko aljana yal na yàlla woyofal suuf ci kaw ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye dëkk bii dëkku baatin na gëm na ni lépp lu fi waay ñaan insha allah yàlla dana ko nangu ndax sëriñ ma di ko moo waxoon ne caraba kajoor gi ku fi ñëw ñaan bi sa soxla bu ma fekku sax ñaanal soxla dem yàlla dana ko faj insha allah yàlla dana ko faj loolu loolu xam nañ ko biir tey taalib yépp xam nañ loolu moo waral dëkk bi di dëkk boo xam ne ko sëriñ Pape Seck waxe bërki jëm nee na ku fi ñëw ñaan bi sa aajo te fajuwul jàppal na du ci yow la waaye du ci place ndax dëkk la boo xam li yàlla bañ lépp dañ koy bañ góor ak jigéen du fi jaxasoo kenn du fi tux kenn du fi naan sàngara kenn du fi sàcc di yàlla gis ko seex kay waxe sëñ ma digi daan def ba pare te ci yàlla perte boobu dégg moom nit ñi ñu ngi profité bu gàmmu lu ñu ci amee teraanga lu ñu ci amee xaalis nangam nag moom gisul ko mu jug itam sëñ mari gi da ne woon gàmmu gi kenn defal ay carte moom gisoo ko jël ko wala sëñ Pape Abdoulaye Fall da woon gàmmu gi ko fekkatee ay carte kenn ko defal te nit ñu bëri yaakaar na seen i carte ba am teraanga moom ñu na foo xam ne yàlla boo ko yëgal bindee fi di yenn coono jërëtul carte ndax yàlla moo ko balaat ci xol ndax ñu lañ gàmmu baati kon nag fa tabaarakallaahu gàmmu boo xam ne bu yaakaar la yàlla na yàlla nangu lépp ci biir ak biti di sant suñu kilifa yi nekk sëriñ Talla Seck di suñu wàllu imam ratib cana ba fii nekkoon xaatu suñu ma liggéey doom yi njabootam waaye taxawaay bi lépp rafet bi nga war a mel di nuyu rakam sëriñ xalifa fa tabaarakallaahu ñu ko moom taxawaay lépp rafet di nuyu bàyyi Talla Diagne chef de village lii ñu doon def wala mooy boobu Serigne Pape jotaay bi Serigne Pape bi ñu ko tàmbali bi kii Malick bi am na at moo xam ne Serigne Malick moo ko doon ndigal ni ko bu ñëwee suba la gàmmu ci ko jox na fi def conférence boo xam ne nit ñi dañ ci mën a waaru dañ ci dolli seen borom ndax boobu ñëw bu ajjul def rek Serigne Pape def na ko ñaari at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 bégee ba di ko bégee waay ba aljana ana waa daara ji Shamsu TV la ñuy bégee ba aljana ay ba aljana waa Shamsu TV